man maa ngi tudd Mamadou Diouma Ba maa ngi juddoo Dakar Plateau chauffeur de taxi la li presque depuis 1996 ak legui problème bi dal moy que. depuis bi fi feebar bi duggee ak legui dal ni sunu liggéey mom dafa wàññeeku bu bu bu baax baax. gisatuñu client gisatuñu nit ñi. auto bi man mako momal sama bop auto bi maa ngi ko jënd 2000 2005 mais demoon naa ba benn mama oto bi paan amatu moon doole pour ma defar ko léegi far yàlla léegi ma toog ba ma dégg ni commencé nañu léegi nag bi ñu kiiwee commencé ñu nañu léegi ku ci nekk fi nga dëkk sous préfecture boobu ngay kiiwu jee bindoo léegi man ma dem sous préfecture Dakar Plateau ma demee ma kii fa bindu foofu ma bindoo ñu jox ma benn ticket ñu ne ma lii mooy sa numéro mu ñu woo ma ñu ne ma kii nañ la financé nañ la financement bi ma ko kiiwee jotee oto bi lépp laa kii defar bàyyiwuma di dara dara dara jënd moteur jënd batterie jënd organe defar tôlerie yi. toiture bi sax nii dama ko dagg. daal di dem jënd ji kii toiture rek ñëw monter boo xoolee oto bi ni mu kii woon meloon ak léegi ni sant yàlla waaw deer moom wax dëgg yàlla ku dee ak sa bàmmeel mais moom ni financé na ma financé na samay morom yu bari mais samay moroom yi moroom yoo xamante ne. ma ne seen activité dafa daanu woon waaye nag man la laaj ñaan nit ñi nañu ñëw ma na ko di wax bu ñu ragal ni dara parce que pour nit ñi gën a nekk xam na que ne ñu ngi liggéey il faut que nit ñi di ñeme di génn di wax mais nag bu dëkk jotee nag dañ koy wax moo tax may ñaan monsieur le président de la république su amoon ñett ñu mel ni kii Pape Amadou Sarr kon ni ni kon kii ñu bëri ndaw yu bëri ni ñu sonn lépp lu may wax dama ko kii dund parce que dafa financé dafa ma financé financé samay morom financé samay morom am na ñoo xamante ne ni ni man maa leen yóbbu DER ñu dem kii déposé après ñu woo leen a ah leen kii financé leen waaw man lu may kii ñaan nit ñi tamit buñ la financé ñëwal ko rek nga wax rek nga ne kii nañ ma ni financé nañ ma te ñu bàyyi làqatu bi man mii di wax yow lii c'est de la force fii laa juddoo fii laa yeroo musuma fa dugg deer moo ma fa yóbbu séminaire jangal ma management ma pare ñu ñu jox ma ci arrestation ñu ki ma ni jangal ma legi léegi dama gën xam organiser wu man sama morom taximan yu bëri moomuñu woon seen kii auto waye legi ni fu mu ton ni ñom ñoko mom xam nga lu leen di denk bu ñu amee projet nañu ñëw déposer ko DER DER dina la financé mais tamit bu la kiiwee financé liggéeyal nga remboursé ko pour ñeneen ñi bëgg ñu ñu ñu kii leen financé